alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yi nga xam ñu ngi suivre partout ci àdduna bi ñu ngi fii ci Médina Baye Kaffrine ñëw si bés boo xam ne bésu tiis la mu dal euh, ci umma islam yeeg yëpp dal ci faydu Mawlana Cheikh Al a Ibrahima Niass Tijaan ñu nekk fekk muqaddam bu mag di kilifa bu mag ci xadra bi nekk Nioro di liggéeyal Baye liggéey bu am solo muy Cheikh Baye Diawo Abdou Barhama nga xam ne moom turam sax dafa méngoog turu Cheikh Abdoulaye Wilane Abdou Barhama. gannaaw bi nga déggee tiis bi naqar wi ban émotion nga am si sëriñ alhamdulilah ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te di leen delloo njaal di wax ne xew-xew biñ ko déggee dañoo am mbetteel bu rëy ndax xàgg na ci ñun foo xam ne demoon nañ bi suñ xel mosta dem ci dee ci mbiram xam nañ ne ku dund dina dee waaye nag du ci waxtu wi lañ ko séentu woon ci moom parce taxawaayam tey ci lislaam taxawaayam ci diine ji taxawaayam ci tariqa bi taxawaayam ci faydu bi man ci li ma gis man gisuma muqaddamu baay bu mel ni moom lim injaazaat mooy lim liggéey lim dugal ci faydu bi lim dugal ci tariqa bi lim samp ci école lim samp ci ay muqaddam lim tasaare ci faydu ci Afrique gisaguma soixante-quinze ak léegi ku def lu mel noonu mu nit ni koo xam ne képp koo xam ne ndaw nga tey nga yëngatu ci Faydu Baay bii ak koo mën a doon ak foo mën a nekk jël nga référence ci moom moo la woon yoon fooy jaar nooy liggéeyalee Baay Ñas ci moom lañ ko xamee nooy xidmaalee Baay ci moom lañ ko xamee naka la taalibi di reyoon ci kanam sëriñam moom lañ ko xamee xiir ndaw ñi ñëpp ëf seen itte élale ko ci kër Alaaji Ibrahima loolu ci moom lañ ko jëlee kon tey mbooleem taalee Baay yi ci àddina bi tey ñoo ñàkk nit koo xam ne nii ah, yàlla mun na lu lekk waa am remplacement dina jafe trop parce que nit la woon xam ne amul benn boor booy làmb ci lu ne def ci mat mbëggeelam ci bàyyi loo bëgg bëgg bàyyi boo joññante moom nga xeb sa mbëggeel ci bàyyi soo demee ci liggéeyal lislaam iteem ci jaami yàlla yeeg doomu aadama gis ma dafa jéggi dayoo mosuma gis nit ku amee itteem moom ak nit ku laayee biir ni moom nit ku oyofee ni moom nit ku tabee ni moom nit ku baree xam-xam ni moom waxtu woo toogee ci ronam dégg ci moom loo mos dégg te balaa nga koy déggaat foog nga ñëwaat ci ronam loolu yàlla maye na ko mbiram yëpp bàyyi la keroog ba mu ñëwee ci baay ba léegi xamul kenn amatul ndey amul baay amul mbokk amul xarit lépp am Alaaji Ibrahima Niass la moom ci moom rek laa dégg muy ngénte doom ne si su fekkee ne du doon taalee baay yàlla na dee jabar juñ nar a takk su fekkee daf ñoo teggaleeg baay yàlla na sëy ba tas loolu moom ci làmmiñam laa ko dégg nit la nga koo xam ne wecciwut ak baay Alaaji Ibrahima dara kooku nag tey moom lañ ñàkk nga xam ne tey suufa nga koy jooy waaye xam-xam mu koy jooy waa ndaw yi sànku xam-xam ñu koy jooy mais faylu baa ngi koy jooy mais xaalu alaaji ibrahima ñu ngi koy jooy waa asamaan ñu koy jooy te xam naa ne itam waa malawul ala ñëpp ñu koy jooy waa nag waa àllaaxira tey ñooñu Cheikh Ibrahima tey ñu ngi kontaan ndax ñu ngi xam ne ñu ngi am gan goo xam ne ni tey koo xam ne ni soppi ko gën a bëgg ci kaw suuf tey mu ngi fekki alaaji ibrahima ñas tey man gëm naa ne mbindeef bi gën a bëgg bàyyi tey ci kaw suuf tey mooy tàggoo ñun tey pour fekk sëriñam Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu loolu daal ci gàttal ak ci tënk mun nañ koo témoignage ci moom waaye mbiram kenn mënu koo wax ba mu jeex parce que da xam géej la woon goo xam ne amul tefes fii li nga xuus ci moom rek nga mën a wax mais munoo xam lépp Abdou Barhama man nag mooy mooy suma mooy suma sëriñ man mooy suma sëriñ ci faydu moo ma doxal sayru moo ma njëkk a jox lijaasa lépp lu may ma bi may def kër bàyyi référence bi ci moom laa ko jëlee même Abdou Barham bi may wax Ousmane Abdou Barham moom moo ma ko wax bi ma sàncee Koosi ma oo fa mu ñëw conférence mi mu ne mboolem ñi àndoog man yow rek laa nangul ñu ne Ousmane teg ci Abdou Barham te dëgg la ci yow su fekkee yàlla xam na ku ma bëggee ni yow yàlla ko waa man xam du xaw ma ko loolu wax na ko to ñu ngi sant yàlla ci loolu te ñu ngi xeeb mbëggeel boobu bu baax a baax dama wax ne ñëpp a ñàkk waa waaye dama jàpp ne man mii maa ñàkk tey ndax référence la woon ci man waxtu ma toogaan sax suma ma xel daj ko damay yëg ne maa ngi am ay madat yu koo ci moom loolu ñu koy sant yàlla bu baax a baax ñu ngi koy jaale ummal islaam yëpp di yàlla yàlla nañ des ak barkeem yàlla dëkkaale ak sëriñam yàlla itam na yàlla barkeel njabootam ay sémbam yëpp yàlla nañ ko mottal ci gannaawam. bi jaay Mawlana moom hmm. te ñi fi ñëw ñëpp li leen di dénk rek mooy li may dénk sama bopp moo ñu jiital yar ak teggin parce que loolu lañ xamee bi moom lañ ko xamee moom ku àndoog moom képp kuy yaru ci keppaaram rek xamee nañ la yar xamee nañ la teggin xamee nañ la itam maandu waaw xamee nañ la itam téye sa làmmiñ lépp loo xam ne wër na la ne du Abdou Barham wala ci dugal sa yoon nekku ci noonu la yare njabootam noonu la yaree itam képp taalibe bu ànd moom loolu lay dénk ñëpp dénk itam di wax ni itam képp koo xam ne àndoo yàlla la woon teel àndoo di gën a dëgër koo xam ne àndoo gi duutoon yàlla nag te mun ngaa foog ne fi jeex na mais tey lay fi tàmbali parce que am dina fi des jeex itam dina fi des ay doomam a ngi fi ay muqaddamam mu ngi fi kon kenn ku nekk fa nga taxaw fa gën a taxaw ñu xam dem na waa sampal nañu loo xam ne loolu du di jeex mukk képp koo xam ne chef de village moo la ñoroon wala moom nga bëggoon te muy dëgg ci yow tey nga koy gën a bëgg te nga koy gën a jàpp tey ngay gën a jàpp njabootam te ngay gën a jaayante ak liggéeyal ko ndax liggéeyal ko mooy liggéeyal El Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhu hmm. Hmm.